asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. guddi gi nag. lii lépp ay ndaw lañu ci góor ak jigéen. baab lay xam nga ko moom guddi gi. ñiñ ci dolli ren muy ñett. kenn ki jigéen la muy soxna Haajara. Ablaay dem nga màkk Safa ak Marwa soxna soosu ko fi indi doomam Ismaayil Ibrahim mooy borom këram day dem Misra nëbb ko ndax buur Misra day bañ a gis jigéen ju rafet su ko gisee da koy confisque da koy nangu jabaroo ko ci sama turandoo dafa fiir bi muy dugg misra ñu gàttandu ko seet dencuwaayam fekk ci soxnaam bu ñuy wax saarata rafet lool buur bi ni nañ ko ko indil ñu ber Ibrahim jël soxnaam buur bi yore ko ci palais bi pour fas yéene séq ak moom maanaam njaaloog moom pour mu leer ci jabaru yonent war ngeen xam ni ku nit àttan na lu jàng leen ci loolu nit àttan na lu oustaz Alioune Sall ku ma ne la wóolu naa ko damay fen man Iran ndax ñaara tax mënumaa xam lu nit ki xalaat mënumaa xam xolam lu mu ci yéene moo tax ñemewuma nit ñaari kontóor yooyoo tax xalaatukaay ak yéene xol bi nga xamee ne jël na ko nag nara fanaan ak moom ci pale bi Ibrahima jaaxle mësul xam ci jabaram lu bon waaye buur a ko jël ti buur dafa garaaw mu dugal ko ci pale bi saarataa ngi rafet mu fas yéene nag yegg ci moom fi mu dóoree pas avancé rek uuti ko fi la yàlla téye tànk yi téye loxo yi def ko estati mu ne këtt taxaw mënatul bouger fi mu ne pour songu saarata mënatu ko mu am yéene bàyyi ko gis nga yéen ñiy toog ku ci yéene lu bon day kale say mbir soo bàyyi yéene jë mu kàllarti say mbir kon ku fi yéene nit lu bon din ku léegi ci tànt bi booy xëy sa affaire dox waxuma ko de man ci alxuraan lay sukkandiku yéene dana gàllankoor nit yeneen yàlla nee na ci xadiisul xudsi xooluma seen jëf xooluma seen forme li may xool li ngeen di jëf lu ngeen ca jublu loolu laay xool sa jublu ba rafetee ma nangul leen ko bu ñaawee ma bàyyi yàlla ñori kiiraay bi dox Ibrahim ak buur bi ak jabaram pour dalal xelam ne ko sa jabar a nga buur baa nga xoolal comme télé yii rek fi mu ne gaa yi ci monde bi yëpp direct lañ ko def ci monde bi direct lañ ko def ci monde bi lii ñu lii may waxtaan noonu la ñu defal Ibrahim mu jàkkaarloo ak soxna saarata ak buur misra gis statut bi ko yàlla def mu song ko ñetti yoon yeggul ci la ko jéggulu rocci yéenee xolam yàlla delloo ko dooleem defar leen seen yéene bari na lu nit di yóotu du ko jot la ca namm bu ko jotee moo tax jotu ca su ma ci jotee tëj xalifa kayre su ma ci jotee nangu tooli xalifa kayre su ma ci jotee nangu këri xalifa kayre yàlla ne Iran doo ci jot man sama jaam kenn du ko toroxal soxna saarata ñu pare buur misra wan ko ne bég naa may ko jaam bu ñuy wax haajara booba mu ngi ci cent ñaari màgget lañu ñaari màgget lañu ñu may ko haajara bi ñu ñibbisee saarati ne ko gannaaw mënuñoo am doom ndax mage gis nga màgget du dàq taar kuy sañse doog a rafet rafetoo ma ñuqu nga xam nga ma ñuq moom nga waaye ku yeewu suba teel rafet jóge ca bojjukaay ba rafet jóge ca teen ba rafet noo mel rafet taar nga taar waaye koo xam ne bala ngaa rafet deferu rafetoo deferu ma rafet yow ma ñuq nga mu yëkkati ko may ko sama saarata euh, saarata yëkkatiwaat ko may ko ibrahim ne ko maag yow amuñu doom te xale moo mën a toppatoo mag may naa la ko ibrahima jël ko séq ak moom haajara ëmb dëkk bi yépp ni ibrahima juru ko parce que cent ans mënta am doom dafay mooy pause tubaab yi ni ñu mënee fen te ñoo ko wax waxuñu dëgg sayyidatuna Khadija bi ko yonent bi denc lu ma am ñeent fukki at yonent bi am ñaar fukki at ak juróom jur nañ juróom ñaari doom bu mën a pause doon am am fee tubaab bi waxul dëgg dellu leen ci mbindu maam Serigne tuuba dellu ci mbindum Cheikh Al Hadj dellu ci mbindu maam Abdoulaye Niass dellu ci mbindu maam Cheikh Omar dellu ci mbindu maam Limamou Laye dem ci mbindu maam Amary Ndack Seck ñoo ko yor ñu ñoo ko yor da daan tee dem doom te am doom mag ñi bindal la téere nga am doom. subaab yi dañ lay pikiir ba nga dee ñu jox lay doom ba nga dee doo jur tus mu may ko ko mu am co doom ñépp wax ni Ibrahima juru ko âge bi mu am waru cee mën a am doom kon keneen a am ak Haajara doom Ibrahima du tontu yonent yàlla def ko naan bul tontu maa lay tontul wanaa ko benn kilifa ci réew mi ne naa ko bul tontu mukk ti bul wax li yàlla joxe xamoo ku mu koy jox soo ci waxee lu ñaaw ti joxu ko nga rëcc ko ñoo am ca doom saarate mi ko maye woon am naqaru xol lu tax Haajara am doom te moom amul doom muy fitnaal Ibrahima ba mu génne xale bi yóbbu ko ca Makka ay xeeri kese fa ne ak rabi àll mu mbaaral ko dëkkal ko fa jigéen ñi koo fi mbaaral waxuma mbaaral yóbbu ko ci néegu ñax day lànk ay daa fekk na moo sëy rek mën di ko bëgg sëy laa xam ku bëggula sëy xamuma la yàlla rekk a fi ne ku dul yàlla da ngay nëb ñu suuli la jigéen a góor ci yam ah gisoo li ma añee mu ci mbàq gi di te bu ma demee Tiwaawan bala maa tëdd génne ko ci duus wi daw foofu li ma naan muy jii mu ci mbàq gi su may yegg génne ko ci sabukaay bi kon may kan waaye du ma tus ku fiy tiitaru am nga wanag waajukaay la ku fiy tiitaru am nga duus waaye ñëpp waajukaay wanag waajukaay moo tax américain yi tuddee ko wanag mooy wan amul too amul tiri kenn kenn rek wanag amul too amul tiri du olof de amir la làkku américain la olof mooy wan reer bi nag mën nañ koo bokk bokkandoo ndékki li bokkandoo añ bi waaye su ma koy génne wan lay toon Iran rek ndax la muy xasaw moo tax loo rek la ti xoolal li ma saw ni mu xasawee ti bi ma koy naan ni mu xeeñee xoolal bi ma koy génne ni mu xasawee bi ma koy lekk xale yi ni mu xeeñee ku ne naan sa morom jàppal ma te li nga lekk boo ko génnewul àdduna tukki tey leen te nu yaru te nu dal te ñu jiital yàlla nangu ni moo ñu bind mooy sunu borom ay jaam rekk lanu ustaas a ngi nii bi baa ngi na ko ñuulalaat bu jëndul ñuulal du ko ñuulal de yéen ñi bijaaw yëpp seet leen ko karaw gu fi ñu ñuuloon weex na tàll ci weex tàll googu balaa pare perkaal nit dërët ñu boole la ak perkaal suul xam nga lu tax ñuy suul nit xasawaay bi lañuy bañ mu fitnaal ñu ñu gaskaam bu suul ko ca bu doon ko dee ñu diri la ñépp dee xet amul yiwu ci ne non non dañuy gas lu tolloog rek lu la mën a nëbbal xat ba du génn mu dëkk ca àll bu xonq ba moom haajara ak liir bu ndaw tuddaguñu liir bi lam leen joxoon ci yóbbal jeex bi ibrahim di dem haajara ni ko waaw ibrahim koo may bàyyil mu wéttale ma mu ne ko yàlla doy na wéttal banaa laak yàlla <laughs> am naa gars yu bëri yuy daw appartement lu ñu luye woon bañ ko mënul leen yor ñoo ma woo Iran loo xam ci ku luye appartement te mënatoo ko te bagga a daw ma ne ko dawal loo fay def benn jigéen da koo jar kenn jaru ko maam jaara busa daal ëpp na ko soxna jaara busa ëpp na luye appartement maam faawaat du wele ëpp na ko ñoom kër ci aljana sax ëpp nañu ndax liñ defal seeni góor maam jaara fanweeri at ak ñett la benn waay di ma laaj ne ma ban siècle la bokkoon ma ne ko mu yow nit nga maam jaara di sénégalaise dëkk poroxaan maam Mor Anta denc ko mu féetee daara ji soqukaay ba bojjukaay ba naafelikaay ba bëgg-bëggu Mor Anta Sali Mbàkke moo ko may Ahmadou Bamba mi loo ci man tuus am na ñu koy digg sànnee ko leen waaye dañuy dee ñu suuli leen rek man ganaaru kenn nenu ma non maam faawaat du dem naa ba fu ñu ko denc dem naa ba bàmmeelam dem naa ba fa mu doon fóotee dem naa ba fa ñu ko mayee dem naa ba ci kër ka ko maye fa mu juddoo dañ koy leeñ leeñ bu rafet moom Maodo ñooñu rekk a fi ne tubaab yi ngeen di roy du tus capp-cappi fii aloo allo seve na ngeen def yooyu dara te bu ñuy wax ak yow defar seen làmmiñ ñi di ko nganda di ko rulle allo allo mooy la mais lan mooy loolu il nous ñu dellu ci ñooñu maam haajara ndox jeex na lekk jeex na ti Ibrahim nekku fa mu jaaxle nag doom bi di jooy jooyu di def nii tànk yi di ko wéq ni xale yi yuuxoo di wéq seen tànk sayiduna jibril ñëw këtt fi tànk yi nekk ndox mi naaw fekk na saarataa ngay daw xaajaraa ngay daw yéeg ci montagne bu ñuy wax safa wàcc dem ci marwa yéegaat ci safa ba muy septième fois juróom-ñaari yoon ci la dégg baat bu ko ne dellul fa nga jógee woon ndoxo nga xale bi di jooy nag muy wax ak sunu borom ne ko isma yaa iilu bi bukkaay ibni isma arab la mais il du arab ibra la mu boole ñaari làkk yu bokkul il muy firi yàlla ibra mooy jaam hiim yàlla jëbra iilu al jëbra mooy kàttan iil mooy yàlla mu ne ko déglul sama jooyu doom ji yàlla nangul ko ko ndax daa nangul jëkkëram bépp jigéen bu nangul jëkkëram lu mu wax yàlla mu def ko xam nga bëri na kuy julli di woor di ñaan gannaaw àddunaa la ñor yàlla dana la ko jox waaye jur sang jur góoru yàlla yàlla jaral la lu ne képp kuy julli di woor ti yor kañaan yor soxor yor xat loo dégg ci lu baax mu naqari la jàppal ne da ngay julli waaye doo jullit Sénégal bëri na ay jullikat mais jullit bëri wu fii ku mu naqari nga woo ma wax ma ko bari na jullikat mais bëriwul jullit laaj ma lu tax inna salaata tanha anil fahshaay wal munkar yàlla nee na ku bëgg a bàyyi lu bon ak lu ñaaw del julli soo koy def lee nga bàyyi lépp ku la dàq jullee la dàq def lu bon ci réew mi julli ba sëlmal dem sosal nit julli ba sëlmal wax ci nit lu ñaaw julli ba sëlmal luqati mbiru nit te koo fi dégg muy wax ci nit lu ñaaw moo gën a ñaaw la ñépp fii ku fi set bëriwul de set ma am naa mën naa am na mais wecc wecc amu fi ismail jooju moo xool ci lañ ko tuddee yónni yàlla ismail ismail jigéen a tudd turu doomam mën na ko dara newu ci bàyyi ma dikki bëgg tudd naan iran lay xaar mu jógee Tiwaawoon ab sër ab sëriñ fu ne la tudd doom ku la ko wax ku la ne élimaan yi tudd doom yi nit ku la ko wax ku ko fi jàng wax ma ko tànt bi ku ko fi jàng wax ma ko laa wax kuñ ne la élimaanay maye doomi jàmbur kuñ ne sëriñ bee koy maye baay bi jur mooy maye su lànkee ku ko maye kañ ko may amul jabar nekkaale la yor ngay xaar tudd toog naa fii Thiès ñuy xaar tudd ba une heure ma ne waa mu ne ah ma ne ko dootuma ñëw sa tudd yow jàngoo dara gis naa ngay gàmm mi yow da ngay wayaan mi amoo xam-xam ki ngay xaar luy ndayam Thiès bi su fi toogoon ma tudd turam waaye nekk fi kon dama koy jëw Haajara moom Safa sëm sëm di ndox muy la mu di ko fuuk ak loxoom naan ko dalal ndox ma ne dégg bougeetul suñ la laajee yow Muhammad lu tax ndox ma dal bougewul nga ni Ibrahima moo ko dalal mu dal bougewul jigéen ju bëgg sa doom bu ne def leen ñu def jigéen ju bëgg bu ne yàlla defal mu def bu la sa jëkkër ne defal defal moo ko dalal mu téye zam-zam buur màkka nag jël américain yi xam nga buur buur la pour ñu yéegalal ko ndox mi ci kaw américain yi jël seen moteur yooyu monte ko déclenché ko benn toq ndox yéegul ndax zëm-zëmi haajara xale bu jigéen bu ndaw mu ne ndox mi bul bouchan buur mak jiem ci lu ne manu ca dara ay dañ koy duel ay seterne diko indil dem na màkka ndax zam-zamu soxna ci nee bu ko bàyyi woon mën na don dex ndax ndox muñ xamul fu muy jóge koku moy haajara tabaskin moko mom ndax bañuy teur domam muy Ismaayil baay bi ñëw ne ko yàlla dafa waxoon ma rey sa doom tabaskee ko mu jooy Ibrahima ne ko Haajara looy jooy mu ne ko ma xale bi yaa ñu moom di ba la waxoon nga tër ma rendi ma loo ma ciy tàggu mel ni man dama laa yilif rendil su ne la nga boole ma ca ray ma du ñi ma xam de man nag boor bii laa jublu jubluwuma fenn fii rek lay xool ku fi jógee nag def ko leçon jël tund boobu ñi jël doom ji tër ko mu ñëw ci doom ji di ko tàggu ne ko yàlla daa wax ma rey la mu ne ko ifaal ma tuumar yaa abati bul jiital yaa abati de boo ko defee daanu ifaal ma tuumar yaa abati papa ji ndigal lii ñu la jox mu ne ah mu ne ko papa defal rendi ma bëggoon naa génn sax doxi tey duma génn damay toog ba nga pare ci man ba rendi ma li ma lay ñaan sama mbub mii denc ko di ma ko xoolee boo ma rendee denc ko di ma xoolee mu tër yi benn xeer a ngi ci côté mu daas ci paaka bi ndax nee reen rendi daa war a gaaw ndax daa métti mu teg ci puut gi bomb ku la ne bombul waxul dëkk man maa la ko wax mu bomb bomb dara daggul xeer wi mu dendal mu dóor ci paaka bi tay xeer wane ngalañ mu ne paaka bi lu tax yow xeer wii ni mu dëgëree nga dagg ko baat bi ni mu nooyee doo ko dagg mu ne ko boo ma tege ci baat bi yàlla naan ma bul dagg baat bi laa tax taylu ono yàlla ma naan bul dagg baat bi looloo tax dagguma ko لا تختي لون سيتل مدلوات دفال لم دفول تا نيتل با مو بو رك دريت جيناو نيكي جبريل كو تيرال الخر مو رندي خرما لولو ورال تاباسكي تاي كو موم تاباسكي هاجر دومم اسماعيل يننتل لوكو كو ماي نانغول جيكرم ku lànkal sa jëkkër ku jur mu lànkal la jigéen joo gis mu yenu añ jëm prison ba moo lankaloon jëkkëram day yóbbu añ juróon ku baax a gën jur ko yóbbul añ fuuf koo koy xaajare li ci des oustaz ci ñëw alhamdulilah kon jigéen ñi yéen moom guddi gi seen wàlla ngoog xasan ak useynu li tax ma boole leen ko ñoo bokk biir ñu ngi magante quinze jours ku ko bëgg a di oustaz demal ci téere bu ñu ahlu bayti nabi mu nga fa yéen oustaz yi un juddu na bañ am un mois quinze a juddu bi mu juddoo Ousseynou dafa dafa tàng fase na quatre-vingt-dix-neuf jabar téeri histoire boo fekk mit laax bu laaj ko ko moom boo fekk fasekat xasana ko moom Seydina Ali dajale ñépp ne leen bu ko kenn mayeti jabar kii dafa tàng kuñ ko may da koy fase waa Madina ne ko kum ñaan mu may ko ndax ku goronteeg yenent bi dem aljana alaaji Maalik ni déedéet ne ko aafi junnaatihimi Moustapha ku góoronteeg moom say bàkkaar ñu jéggal la ko aafi junnaatihimi la Xasan Fasit téeméer baa ko rey Muawiya ibn Abi Sufyaan ak Ali ibn Abi Taalib dañu bëri ay contention yu bëri ay ay reyante seen reyante nag bëri na faatu nañu ñu bàyyi fi doom Yésiid Muawiya ko jur Xasan Xasan Ali na ko jur kenn ku ne représenté sa baay Yésiid woo jabaroo Xasan ne ko dinaa la jox ay million su ma paree dama lay takk nga nekk jabaru buur moo gën li nga nekk reyal ma xasan mu dëbb xotti bi te lay ko def ko fonde jox ko mu naan biir ba di dagg